ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Valda Afrique moo leen di may Sud mbokk déglukat yi docteur Bintou Cheikh Seck maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Rosalie. docteur tey da ngay tontu ay laaj yoo xam ne suñu ay auditeurs ñoo ko posé. Euh, noonu la euh, comme bu mu ko defee rek weer bu ne. Euh, damay dem ci page Facebook bi ñu bari damay am mbégte euh, di tontu seen i question ay question yu bari ñoo fay dikk euh, te su ma nag ni tontu bi war na mën a jëriñoo ñu bari dama koy waxtaanee fii ci antenne bi. ñu tàmbalee question wu Ismaël moom nee na moutarde lan lay jëriñ est-ce que dafa am solo est-ce que dafa am njëriñ ci suñu alimentation. waaw moutarde amul maanaam mën nañ nit ki mën na dund diiru dundam yépp lekkul moutarde te wérgu yaram euh, wérgu yaramam mat maanaam moutarde du loo xam ne dañ ko soxla pour suñu wérgu yaram euh, mais moutarde kii la li ñuy wax condiment la maanaam ni poobar wala laaj wala euh, yeneen épices nekkee ay condiment dañ koy dolli ci suñu ñam yi ndax ñu am cafka pour dolli seen cafka cafka noonu la moutarde nekkee condiment alors amul dara lu muy wàññi ci suñu yaram amul dara lu muy aussi lu mu ciy indi loo xam ne lu gën la ci ñun waaye nag am na ñaari euh, mbir yoo xamante ne nit ki il mu bàyyi ci xel buy lekk ci jëfandikoo moutarde benn bi mooy euh, moutarde nag dañ euh, dañ ciy dooli xorom donc ñam la boo xamante ne ngir ki nga xam ne dafa bëgg néewal li muy lekk ci xorom te loolu moo gën ci ñun war na cee bàyyi xel ni ci ñi muy jëfandikoo moutarde dafa am xorom ñaareel bi mooy malheureusement ci suñu marché yi ak supermarché yi am na xeetu moutarde yu bari yoo xamante ne duñu moutarde parce que moutarde ku ne moutarde mooy euh, loo xam ne ñu ngi ko defaree graine moutarde moutarde benn kii la gàncax la boo xamante ne dañ koy jël jël doom yi euh, ci dañuy jëlee lu jaune loolu nekk moutarde waaye nag ci suñu marché bi malheureusement am na moutarde yoo xam ne euh, duñu moutarde dañoo jël farine rek Euh, dolli ci xorom ak vinaigre ak ay colorant yu jaune pour que mu nuru moutarde waaye du moutarde donc nañ bàyyi xel ci loolu. question bi ci topp mooy bu Modou nee na docteur damay faral di sonn très facilement lan laa war a lekk ngir mën a am énergie. alors Rosalie li tam euh, laaj bu ñu may faral di laaj ka euh, xam nga dëgg la nit ki nga xamante ne lekkinam demewul yoon jaarul yoon. kooku loolu mën na indi euh, coono ci moom maanaam ki nga xam ne par exemple li muy lekk li muy jëfandikoo ci fruits ak légumes nga xam ne daf indi gàncax ak ay ferñeent vitamines yi nga xam ne moo tax suñu yaram di dox na mu war a doxee wala nit ki nga xamante ne euh, li muy lekk dafa ñiin torop loolu mën na indi coono ci nit waaye euh, li en général bu ma laajee laaj yi li may njëkk tegtal ñooñu mooy ak moodu mooy nañu fexe ba di nalaw nalaw yu doy ñu bari li leen di indil coono mooy ñàkk nalaw guddi waaye wala guddee tëdd war a teel a yeewu euh, bu boobaa nelaw yu guddi yi du doy yaram bi day sonn parce que la mu soxla woon nga nga noppaliku ko pour moom mu mën a liggéey euh, kii jotu ci euh, donc nalaw boobu am na solo ñaareel bi mooy am na activité yu bari yoo xam ne nit ñi dañ ciy dugg te pourtant activité yooyu amul solo daf leen li indil rek coono dafay jël seen temps te amul amul dara loo xamante ne lu gëneel bu mu leen di indil donc dañu seetaat loolu et puis may wax Modou aussi euh, tàggat yaram lu am solo la ndaxte nit ki nga xam ne day tàggat yaram di sport lu ko gën a néew ñetti yoon ci semaine bi kooku day tax ba muscle yi gën a dëgër te bu boobaa daf koy indil doole indi ko li ñuy wax endurance maanaam du gaaw a sonn. ñu jeexalee question wu Mohamed nee na dafa bëggoon xam yan fruit la diabétique mën a lekk te tamit est-ce que mën na lekk mburu ak ceeb. Rosalie lii loo xam ne la waxtaanee naa ko ay yoon yoon tax mu koy euh, indiwaat fii. ci ci ci tontu euh, Mohamed mooy ne laaj la boo xam ne dañ ma koy laaj xëy na ñaari yoon ñetti yoon wala lu ko ëpp semaine bu jot moo tax mu koy bëgg saa yu su ma ko mënee leeral rek ma leeralaat ko euh, di ko wax di ko waxaat amul benn fruit boo xamante ne diabétique mënu koo lekk euh, ñoo xam banaana ñu bari dañuy daw banaana ah moo xam tàndarma moo xam màngo diabétique yu bari ñuy déglu am na. ñam yu bari yu ñu dul lekk tere ko seen bopp te pourtant waruñu ko tere seen bopp donc ma koy waxaat amul benn fii bu diabétique mënu lekk waaye nag am na yoo xam ay tegtal yu leer ñu ko yu ñu joxe ci fruits ak diabétique diabétique warul lekk lu ëpp ñetti fruits te buñ ne ñetti fruits mooy ñetti portion de fruits li tubaab di wax portion mooy boo jëlee euh, euh, téeméeri grammes cent gramme mooy benn portion fruit donc à peu près cent gramme pomme wala cent gramme euh, banana wala cent Euh, mango euh, yooyu mooy une portion de fruit ñu ne nag portion boobu 100 grammes yooyu waroo wees yi ñetti yoon maanaam 300 grammes mu fruit ci bés bi beneen bi mooy fruit ñetti fruit yooyu ñuy lekk ci bés bi waruñu ko boole diabétique bi waru ko boole lekk ko dafa war a fexe ba lekk tuuti benn 100 grammes benn fruit yum ci suba si benn fruit yum ci ngoon si benn fruit yum ci guddi si par exemple euh, alors ñaareeli laaju Mohamed mooy ndax diabétique mën na lekk ceeb ak mburu loolu moom nañ ko waxaat bu mu leer diabétique mën na lekk mburu ak ak ak euh, ceeb waaye liñ ko tegtal mooy dafa war a néewal euh, saa suy lekk mburu wala muy lekk ceeb mu néewal lim ciy lekk euh, daal di fexe ba li li ci des ay légumes yaak ndawal yaak yooyu loo mu gën a mu yokk yooyu léegi nag ki nga xamante ne moom mën na jot ci li ñuy wax pain complet pain complet mooy mburu boo xamante ne dafa am gàncax ci biir dafa am fibre loolu moo gën ci diabétique ndaxte bu boobaa euh, euh, suukar si nekk ci mburu mi du gaaw a dugg ci deret bi euh, ki mën a jot aussi ci li ñuy wax ceeb riz basmati ba nga xamante ne moom tam suukar bi ci nekk du gaaw a dugg ci deret bi boobu tam moo gën suñu ceeb bi ceebu bay bi wala ceeb bi ñu importé bi ñu jéggaane waaye nag dañuy xam ne rek ni pain complet bak riz basmati bi yombul donc ñi nga xamante ne mënuñu ci jot garaawul ñoom mën nañu lekk rek suñu ceeb bi ñu am ak suñu mburu mi ñu am mais ñu bàyyi xel ci tegtal yi ma joxe. nga fàttali suñu page Facebook. page Facebook yi mooy Sud Nutrition. foofu la Ismaël Modou ak Mohamed Diar pour waa laaj ñu seen i laaj yéen tamit ñëw leen pour laaj ñu seeni i laaj et puis euh, tegtal ñu ay ay sujet wala ay thèmes ñu leen bëgg ñu waxtaanee temps yi sax am na ñaar wala ñett ñu jox ay sujet yoo xamante ne am na solo donc dinaa ci dellu si et puis xam leen ni am na ay chronique audio ak vidéo yu ñu posté ci page bi. mooy gërëm Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Rosalie. ngir seetal seen i loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen doon may Sud Nutrition. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous offre Sud Bonjour chers auditeurs, docteur Bintou Chersek, bonjour. Chronique numéro Docteur, aujourd'hui vous répondez aux questions de nos auditeurs. Tout à fait, c'est avec un grand plaisir que je réponds aux questions qui nous sont posées sur la page Facebook Sud Nutrition. Et quand je pense que euh, les réponses seraient bénéfiques à un grand nombre, eh je les partage à l'antenne. on commence par la question d'Ismaël qui demande à quoi sert la moutarde Est-elle nécessaire dans notre alimentation Eh bien la moutarde n'est pas C'est un condiment qu'on ajoute à nos mets pour les assaisonner. Donc, on va bien voilà, à la viande, à, au poisson, enfin, à, à tout, si on, tout ce qu'on désire. Euh, elle n'est ni nocive, la moutarde, ni particulièrement bonne pour la santé. Euh, cependant, il faut faire attention quand même à deux points. Premièrement, la moutarde est un condiment qui contient quand même du sel, euh, et pas mal de sel d'ailleurs, donc l'excès n'est pas souhaitable, puisqu'on veut limiter le sel dans notre alimentation. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention à la fausse moutarde sur le marché. Rosalie, il y en a beaucoup. Euh, la vraie moutarde est fabriquée à partir de graines de moutarde. Euh, alors que les fausses moutardes qu'on voit euh, euh sur le marché sont fabriquées avec de la farine et des colorants, malheureusement. Mmh. La question suivante est celle de Modou qui dit je me fatigue très facilement. Qu'est-ce que je dois manger pour avoir de l'énergie? Alors, une alimentation déséquilibrée, c'est vrai, peut entraîner une fatigue, notamment quand on a une alimentation qui est pauvre en fruits et en légumes. sont les fruits et les légumes qui sont porteurs de beaucoup de vitamines dont on a besoin pour que le corps fonctionne euh, normalement. Et aussi quand l'alimentation est trop grasse, ça entraîne de la fatigue. Mais ce que euh, de s'organiser aussi pour réduire ces activités, surtout des activités qui sont inutiles, en fait, qui consomment du temps, qui sont chronophages et fatigantes alors qu'elles n'apportent pas grand-chose. Et surtout de pratiquer du sport au moins trois fois par semaine, parce que quand on fait du sport, ça, tonifie les muscles et donc ça nous donne de la force et de l'endurance. On termine avec la question de Mohamed, je le cite, Je voudrais savoir quels parce qu'elle revient souvent et que beaucoup de diabétiques qui nous écoutent s'interdisent de manger certains aliments et inutilement malheureusement. Euh, je le dis et je le répète, il n'y a aucun fruit qui est déconseillé aux diabétiques, même pas la banane, même pas la mangue, même pas euh, les, les dattes, il n'y a aucun fruit qui est interdit. En revanche, on conseille aux diabétiques, dans la plupart des cas, de se limiter à trois portions de fruits par jour. Alors, une portion de fruits, c'est l'équivalent d'environ 100 grammes de fruits. Donc, on lui conseille de se limiter à trois portions et qu'il ne mange pas ces trois portions en même temps. Donc, euh, la prise de ces fruits doit être espacée euh, sur la journée. Donc, ça peut être une portion le matin, par exemple une banane. L'après-midi, ça peut être une orange. Le soir, ça peut être une tranche de pastèque. Euh, et, et, pour la deuxième partie de la question, bien sûr qu'un diabétique peut manger du riz et du pain. Ce sont des, des aliments pourvoyeurs de, de, sucre et même un diabétique a besoin de sucre dans l'alimentation. C'est le carburant principal de l'organisme, mais en, le riz et le pain en quantité limitée à chaque repas. Euh, l'idéal, si c'est disponible, c'est du pain complet parce que là, l'absorption du sucre de ce pain-là est, est, plus lent. Et le fameux riz basmati, euh, qui a un index glycémique bas, on en avait parlé, c'est-à-dire que le sucre dans le riz basmati est absorbé beaucoup plus lentement que le sucre dans le riz importé ou le riz local. Mais si ces options-là ne sont pas disponibles, eh bien, on mange ce qu'on trouve, mais, sur, mais euh, toujours dans des quantités limitées. La page Facebook C'est Sud Nutrition et c'est la page que Ismaël, euh, Modou et Mohamed ont euh, visitée et c'est là où ils nous ont posé leurs questions. Donc, euh, venez nous poser vos questions, suggérez-nous des thèmes. Et d'ailleurs, j'ai eu ces derniers temps des suggestions des thèmes, je vais y revenir ultérieurement.